Radiakhé le nouveau capitaine de l'équipe de Kaolack drapeau chef de l'État euh nga nek légui ki nga xamné mom moy dem euh, plus de 120 kg daw ñu nekkoon 100 kg ren plus de 120 kg nga nek capitaine bi euh, lan ngay ñëk wax d'abord yow sa diggante Kaolack en tant que doomu Kaolack ñu sélectionné la cette fois ci yaay nek capitaine ndax yaay nek plus de 120 kg yi. way di bëggé wa Kaolack yépp waaw di bëggé ñom adjuma ñom euh, président Mbamkor bëggé kër fa dëgg ma dëkk ak sama morom yu bari ñom papa gaay na waaw sans véhicule yi kontaan rek waaw kontaan rek di ñaan yàlla daal may ndam quoi. Mm-hmm. incha allah. la ñuy ñaan. ren yaa nekk capitaine de. waaw man maay capitaine waaw. Mm-hmm. nan nga nar boote say rak. waaw dem rek wane fulaak fayda rek yàlla may ñu ndam incha allah. Mm-hmm. waaw loolu la waaj waaw. 100 kilo bi daw ñu gis la nga def ci performance bu rafet ñepp di laccé rajaxé lan mo tax bokul ci ñi ñu sélectionné dem CEDEAO ndax wowoon nañ la. non yaw na wowuñ ma woon. Ah. wowuñ ma woon de. Eh. waaw. Mm-hmm. mais paré nga pour dem CEDEAO bok ci équipe euh, nationale en tout cas dal man daal Kaolack dal mom sa eh, drapeau chef de indi ko Kaolack loolu moo ma ñor. mo la gëna ñor pour l'instant quoi moo ma ñor sa